tegal ko képp ku fukki nit wax safar di nga am ci yoon loo xam ni jaratul sax ngay jaamu yàlla seetal loolu ndax ku la wax safar nga borom bi nangu yiwam jox la keneen wax la safar boromam borom bi nangu yiwam jox la boo amee junni noonu nag jeex na bu yeboo ñu tëj kaamil bi Serigne Serigne Cheikh tëj na ko waaw ah, wax na dëgg Serigne Cheikh lu ne wax na ko. Moustapha. mu ne am na ñoo xam ne seen kañaan yëpp mooy sama teraanga yi ma jox sama jaam yi la ñu mënul a ah. boo bëggee yàlla yëkkati la la ngay génne yëkkati ga mooy koo dara di la noonu. laa ilaha illa allah ah lii de bu ma ko waxoon dama ko falsifié waaye bu njëkk bi Serigne Cheikh a ko wax bi ci topp doomam Serigne Moustapha mu bari xam-xam mi gisuma ku ko raw ci réew mi waaw sëñ Moustapha mustarshidina wal mustarshidaat sama nijaay sama xarit ku ko fi raw gisuma ko fi de ku ko fi ëpp fitit gisuma ko fi ku ko fi gën a organiser gisuma ko ah Serigne Moustapha responsable moral moustarchidina wal moustarchidat gisuma ku ko fi gën a bari xam-xam ku ko fi raw gisuma ko ku ko fi gën a dëddu gisuma ko ku ko fi ëpp ngor gisuma ko ku ko fi ëpp diine gisuma ko ku ko fi ëpp mbooloo gisuma ko ku ko fi gën a organiser gisuma ko benn bi moo ko wax beneen bi way juróom a ko wax suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum waaw te mooy dëgg mu ne bu la fukki nit di di di wax safaan rek ba la neexee jaaxaan bañatee jaamu yàlla boo amee junni noonu nag moom jaratul sax ngay julli ma yegg ca waaw waxin la nag waaye bu la neexee sax yem ci ñeenti rakka yi rek bul naa fi la waaw ndax dañuy jël seen yiw jox la waaw surtout nag koo xam ne boo ko laajoon mu ne diw def bi bi sëñ Moustapha wax moo gën a garaaw koo jotee lu dara mu noonu la dara dara koo jotee lu dara koo xam ne lekk koo alalam sequ leen dara au contraire lu du teraanga sax seq seq ngeen ko waaye yow lay bañ a gis yàlla bindee noonu waaw ah, yàlla mënoo ci dara waaw wal yaafu maa xew. léegi ah te ma Chérif yëgu ci dara te gis nga Chérif a nii di tafsirul Quran wallaay ndeysaan ah. neex na de neel dolli sutura neel dolli sutura ah yéen de yéen a ma seede yéen a ngi nii gis maa ngi tafsirul Qur'an ñu ngi may ñu may net man